tey dañoo am gan goo xam ni euh, mi ngi jóge Espagne ñëw yàlla dogal mu bëggoon a ñëw Sénégal bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoo ko doon piloté muy Lamine ñi nga xam ne Lamine Ndiaye ñi nga xam ne moom la yàlla dogal soxnaam nekk ci kaw nekk Espagne seen famille nekk tey tout ça. bi mu ñëwee mu ni léegi comme am nañu écrit bu mag bu nekk Thiès bu sañoon bu des Dakar Thiès lay ñëw bi ñu contacté ñu waxtaan ci ak moom ñu nungul ko ko rafetlu ko xam ne lu mu dee dee loolu avantage pour écrit Thiès mbooloo avantage la pour Thiès avantage pour waa Sénégal bi yëpp. te looloo waral bi mu dikkee ñu ñëw accueil bi nga gis nii ñu def ko dem teeru ko julli ko indi ko gan gi am nag mi ngi tudd Ricardo ñu koy surnommé El Guerrero de la Palma léegi objectif am ci Sénégal mooy ñëw am fi licence wane ay preuve am parce que champion la am na ay vidéo am yoo xam ne am nañ ko ak ay photo yu ñu envoyé ñu gis ci moom qualité yoo xam ne yaakaar nañ bu ñëwee war na mën a apporter écrit bi dara loolooy objectif am looloo tax mu ñëw bi mu dikkee dal ci ñun écrit bi mënuñoo def lu rafetlu ko sant ko yàlla technique gu bëri bi mi ngi ceeg ñoom mais dina ci am loo xam ne certes dina leen jaaxal mu suñu culture bi nga xam ni moom la ñuy bëree ñun lu mel ni takk ngemb li mel ni li muy gis xar nga fuufa yeeg yooyu nit ñuy taxawee nit ñuy déplacé woo yooyu da koo yooyu lañ bëgg xool waxtaan ci ak moom ñu xool moom naka lañ ko ci bi nga xam ne indi ko parce que dégg nga ko sànq ci biir discours am mu nekk ci moom mu bàyyi ko ci ñun moom it dolli ko moom it li nekk ci moom ñu am luñ ci dolli te euh, defe naa coproduction boobu ñu wax moom lañ jàpp ni njariñ la pour écrire yi njariñ la pour wàccee si ñi ngi wax wàccee si nañ ci jàpp euh, looloy daanaka solo si nga xam ne mu ci ko defe naa demain moom la ñuy wax demain dañoo war a def benn séance d'entraînement boo xam ne ñu nag moom rek koy def dans une place privée buñ ca jógee samedi euh, ñi ngi woo wàccee si yëpp parce que samedi ci suba am nañ benn émission spéciale bu seen TV di def ak ñun ñu émission yendu leen te defe naa ñun ak suñu gan lañ koy may ñu ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla defal leen jàmm bañ is ci jàmm ñu mën koo defandoo ak ñoom loolu samedi ci suba lay doon ci Medina Fall beneen bi ci des mooy que ni samedi ci ngoon gi am nañ benn cérémonie bu ñu bëgg a def ak moom benn manifestation yoo xam ne c'est gratuit dañ koy def uniquement pour suñu gan gi béykat defale ko ngir bëggale ko waa Thiès kon képp koo xam ne bëgg nga film mën nga koo am ci ñaari rendez-vous yooyu soit muy. demain bëgg nañu def moom ay mais boobu c' est un peu huis bi ci des mooy c' est bi moom ku bëgg mën na ñëw di nga gis gan bi di nga gis Moodu Anta te di nga fa gis manifestation bu doy waat parce que am nañu ci programme yu baree bari ci yoo xam ne ci traduction Sénégal la bëgg nañ koo wane pour moom buy dem mën a yóbbaale. fan lay amee ban euh, mi ngi amee Medina Fall ci centre Don Bosco fa lañ koy defee c' est gratuit ñu ngi wow ñëpp nag nañ ñëw ci bis boobu.